du président Bassirou Diomaye Faye dugal nañ ko ci euh, c'est pas que dañuy dialoguer pour juste un seul point le dialogue concerne l'administration de manière générale de la justice ci fànn bu nekk maa ngi koy wax sànq euh, muy ñuy jëm ci wàllu commerce justice si euh, wàllu civil ak yeneen ak yeneen mais c'est pas seulement pour mbirum cour constitutionnelle am na benn journal bu ci bu ci ñëw sur lu soxal membre conseil constitutionnel yi nga xam ne dañ leen tuumaloon tuuma boobu ñu tegoon ci seen kaw ñaara mën a am nañ ko setal parce que euh, mu am na wala amul am na ñu mu tey tey seen xel ñu ne ni candidat wu APR dafa euh, soudoyer wala dafa euh, guerre ñi nga xamee ni ay membre lañ ci conseil constitutionnel ba ñu taxawal fi benn commission d'enquête ci parlement bi kon député yi indi ñu dàq élection indi ñu changer lu bari ci élection indi fi coow loo xamee ni ay nit fàttu nañu ci loolu war nañ ko leeral aussi parce que mënuñu toog rek ñu ne ni waa jeex na jeex na on avance on continue dañ ñenn ñi dañuy wax ni y a eu une loi d'amnistie mais loi d'amnistie bi am na loo xamee ni tey mënuñu ko bàyyi mu continuer ci lu soxal ay nit ñu bokk conseil constitutionnel ñu leen ni dañ leen a ger ci ay auteur ay milliards ci lu soxal ay élections yoo xamee ni indi na ay coow avant élection yi lool loolu il faut ñu leeral ko comme am na benn euh, commission bu ñu taxawaloon mu am plainte bu jóge ci benn juge di euh, juge Cheikh Ndiaye mu dakkaloon liggéeyu commission boobu euh, ba ñu ta dem yóbbu ko en instruction instruction boobu nag foog ñu xam ci dara man sénégalais citoyen lambda naa xam ndegam Amadou Ba lañ ko doon tuum la mu lañ ko doon tuumaal moom la ndax am na wala amul te moom ci boppam di Amadou Ba mais il gagnerait setal daram ci wàllu woowu bu dee loolu am na wala amul moom war naa taxaw ci kanamu yoon ne ni effectivement lii am na wala lii amul ña waxoon ñu ne dañ leen di porter plainte mais loolu buñ ko leeralul assise bu ñu mën a def wala waxtaan bu ñu mën a def wala lu ñu mën a soppi tamit du am na ay tuuma yu teg woon ci ay nit ñu bokk ci conseil constitutionnel am na wala amul euh, seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel mais foog ñu leeral ko léegi nag pour soppi ko mu doon cour constitutionnel day fekk déjà kóolute mën a am ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñiy gérer administration justice c'est pas une question de loi wala de texte wala ci euh, parce que ci texte moom bu koy wax ne ni Sénégal bu dee texte ak loi rek ñoo fi dàq texte ñoo fi dàq loi mais du mbirum texte lan la war a appliquer texte wala ñi war a appliquer loi mbirum ay nit la ay doomu aadama ndegam nañuy doxalee baax na wala baaxul c'est ça la question mais cour constitutionnelle ou conseil constitutionnel ce n'est pas le mot qui importe mais ce sont les gens ou les acteurs yi ci bokk ñoom ñoo ci am solo. si wàllum escroquerie foncière